mbokk internetu Guédiawaye info nuyu na leen ne yëpp amaat mbégte ñëwaat teewal leen fi nga xamante ne nii mooy sunu 59e édition ñuy feete sunu indépendance su sunu indépendance su réew. ñu gis na nag am na ci benn commune bu nga xamante ne nii muy Ndiarème Limamoulaye maire bi am na ci initiative bu nga xamante ne initiative bu rafet la mu nekk cinquième édition bu nga xamante ne mi ngi def fii nga xamante ne mooy ci commune am Euh, di fi féete li nga xamante ne mooy 4 avril bi ànd ko ak population bi yëpp ànd ko ak population bi nga xam ne ñoo nekk ci mi njaareem maam laay lépp boo xoolee sous préfet bi mi ngi fi maire mais yeneen maire ñu ngi fi boo xoolee tamit imam yi nga xamante ñoo nekk ci gox bi tamit ñu fi fi ñu toll nii ñu ngi nekkoon di décorer ñi nga xamante ne nii ñooñu nga xam ñoo nekk ci biir gox bi xam naa dañuy bàyyi rek mbokk yi ngeen suivre li nga xamante ne moo des si ci programme bi Cheikhul Koulibaly dëkk Ba Limaamu Laay dëkk boo xamante ni ay valeur lañ ko ñaane ak ay ñaan dëkk bi loolu mel ni moom mooy am ci njaareem Limaamu Laay bàyyiwuñu kenn yaakaar naa ne boo leen xoolee nii yi ngeen gis taximaan yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci gox bi ñoom aussi di def seen participation ci bés bi nga xamante ne nii mooy 4 euh, avril ñu xam ne ñëpp ay citoyen lañ te ku ci nekk yaa ngi ci parce que Sénégal bis bi mu amee woon Euh, indépendance am ren nekk ci 59e édition bi ku ci nekk war nga cee mën a yëg sa bopp ku ci nekk war nga cee mën a yëg ne tey bi feet bi feetu ñëpp la boo xoolee taximaan yaa ngi noonu tey comme ni ñu koy waxee seen euh, seen versement tey may nañ ko li nga xamante ne mooy euh, mooy njaareem limaamu laay mu nekk acte bu nga xamante ne bu rafet la daawuñu ko miin di gis aussi ci ay défilé. ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. ñoo ngi gis euh, fanfare yi ñu ngi nii ñëw xale yi nga xamante ñoo nekk ci école yi nekk seen ginnaaw xale yi nag boo xoolee privé beeg public beeg yëpp maire bi woo leen tey ñu ñëw pour défilé fii ci kanamam boo xoolee maire maire Bédi Seye moo nekk nii toog. si vous ñu am le sous madame Diop mon euh, en beige. waaw défilé ba défilé di di déroulé comme comme prévu. fanfare di le boole xale yi ci défilé bi tey ah. ndax damay wax ni soo bëggee xam sa mag yi ëllëg war na sa gone tey moo waral xale yi tey ñu teel a miin géew bi teel leen a invité boole leen ci défilé bi loolu nag mbir la boo xamante ni ñëpp ko rafetlu ak

ñu bari dañ daan dem fee nga xamante mooy allée du centenaire di fa passé seen fête di fa fête li nga xamante ne 4 avril moom mu andil ñu ko fii nga xamante ne nii mooy sunu gox ku ci nekk mën cee gis boppam ku ci nekk yaa ngi daan rêvé défilé waaye xëy na mënu woon a nekk mu daal koy andi fi nga xamante ne nii mooy si si gox bi andi ko si commune bi xale yëpp daal ciy bànneexu tey faar yi ngi noonu di ñëwaat ak seen musique boobu noonu seen ginnaaw boo xoolee yaa gis euh, ñi nga xamante ne ASP vêtu en noir ñoom ñëpp tey ñëw ci li nga xamante ne mooy défilé bi défilé baa ngi nii ngeen koy am ak Guédiawaye info bi aussi jigéen ñi dafa mel ne wéetuñu si tey daal ku ci nekk sentir nga ci sa bopp muy jigéen di góor di mag di ndaw xale yi ñoo jàll sànq wax naa leen sànq gis ngeen taximaan yi nga xam ne ñoo fi jaar waaw ASP yaa ngi noonu ñiy garde si nga xamante ne ñooy sunu sunu sécurité ci commune bi ci gox goxaat yi di def seen liggéey ni mu waree. bàjjenu gox yaa ngi noonu di ñëw. def seen rose def seen i otes rafet wax dëgg yàlla di def liggéey bu rafet nag si commune bi yaakaar naa lii bokk na ci tamit ak sagal leen invité leen si défilé bi nga xamante ne nii Sénégal ci la moomee boppam ñu koy feete muy 4 avril 59e euh, anniversaire ñu ñëw def ci seen participation yaakaar naa fu xale nekk rek mag war na faa nekk. défilé bi rafet na tey ñëpp a participé zone bleue yi ngeen di gis nii ñoom ñooy club randonnée bi xale yi def seen zone défilé défilé bu rafet ah nongo dara yaa nonu lii mooy waral na nag tey défilé école élémentaire Alioune Gadiaga EPSA jaar na fi Ndiarème jaar na fi Cheikh Wade jaar na fi Amane Ndiaye Dégène jaar na fi ñoo ñëpp tey ñëw def seen participation lii dafa baax aussi ci ay élèves ñu xamal leen li nga xamante ne nii mooy patriotisme xamal leen civisme ñu xam ne seen réew lu jara lu jara fonk la Only. Only. Only. Up. Up. Only. Push. Push. Well. Osurashi. Well. Only. Play. Only. Only. X. Only. That's not. Only. Only. Hey! Eight! Hey! Hey! Hey! Zizan ta ci xale yaay. Mama sa jaareem ñu ngi noonu. Mama sa jaareem. Nekk na Ousmane xam nga lan moo ma ñaaxal. Gis nga lu jub.

sàkku xam-xam comme nii ngeen koy defee farata la eh, farata nag mooy loo xam ni soo ko defee yàlla gërëm la soo ko deful ay duma war na ci yoon ah xadis bàngoog na ngeen ci góorgóorlu seen kéemtalaay kàttan lu ngeen ci mën ndax ku sàkkuwul xam-xam ba nekk mag di nga ko rëcc sa kanamu borom. asalaamaaleykum salaam wa rahmatulah. waaw dafa am laaj bu ma bëggoon laaj. bismillah bismillah xam nga lu ma la waxal xanaa da ngay rus xale yi. xanaa delluwul ci xam-xam. mag. su rusee laaj diine ngir kersa. dina ñu yëng ci biir safara te kenn du ko réglé. bari na ci kër yi ñoo xam ne. ñu ngi yori soxna yori doom te xamuñu nan la ñuy jaamoo seen borom. laajal. li ci des man dama xaw a yàgg àll te bi ma nekkee ndaw la ma fa bu a dikkee daal mënuma sangu set. mënuma sangu set loolu bëggoon naa. yow mënoo sangu set. waaw sangu set de. am nga jabar. waaw may nañ ma soxna. nga takk jabar ba am ci doom xamoo nan la ñuy sax. waaw yaa ànd rek. toog na. Sénégal nekk ci wetu chaque jour say doom di jàng ñu leen di jàngal xamoo nan la ñuy sangoo farata nga am ay doom am lépp xamoo noo jaamoo sa borom ay fii waaw maa jam yow sëriñ yi wuyu ma noo tudd sëriñ ay tey ba sa gémmi gone gi da yàqataan da yàqataan yaay soxna si àndal ak dal ngeen wax li ngeen bëgg jox yekkataan yekkataan masala Merci pour la coordination. Merci pour la coordination. de voir devant le sous-préfet Jean-Paul 36 ans, Yago, qui est de carrière 36 ans. 36 ans au service de l'armée sénégalaise. Qui est Qui Qui est

xale yëg nañ ne tey bésu indépendance xale yi yëg nañ ne ñoom dañ cee bokk xale yëg nañ ne bu ëllëgee ñoom ñoo war taxawal réew mi ku añaani sa ndo sa ndono sa jëriñ ñaaw xale yi dañu am warugaru defar leen former leen ba ku nekk xam ni nga war ñun mag bi ni ñuy dem naan kaasu café sànni ci mbedd mi jël lekk sànni jël kee sànni war nañ fexe ba xale yi bañ ko def parce que bu ñu dimbalee xale ba duñ def loolu bu ëllëgee réew mi dina set dëkk bi dina baax mais ëpp solo ba ëpp solo mooy ñun mag ñi ni ko waa sëriñ daara yi wane léegi ñun ñoo war a yar xale yi teg leen ci yoon boo gisee mbedd mi salte kër yi salte bu kër yi salte mbedd mi lay salte kon lépp day commencé ci kër yi ku nekk dafa war a changer comportement xam ne lii président de la République wax ban ki mu wax ko mu ñor ko te ñor ñëpp dama ne ku nekk war na xool boppam te boo xoolee si bopp ku nekk war na seet ban pexe lay def pour gën ma nag

gërëm naa ñëpp gërëm naa presse bi aussi ñun ñëpp gërëm naa leen vraiment maa ngi leen sant parce que li ñu xalaat di ko def bu ngeen ko vulgariser wul du sotti mais gërëm nañu fanfare bay aussi nga xam ne fanfare yu njariñ Maam Laay parce que depuis quatre ans ñu ngi ànd ak ñoom fii la ñu nekk ak ñun heure bu ñuy def lever les couleurs ci école yi ñoom ñooy ànd ak ñun li ñuy def ci dëkk bi ñu ànd ak ñun vraiment suñu fanfare bi gàcce gàllaama couleur leen xool xam ne c'est une fanfare très organisée très dynamique te li ñuy séntu ñoom ñu ngi koy def ñu ngi dimbali ci manifestation képp koo xam ne participé ngay góor di jigéen ji mag di ndaw vraiment ñu gërëm nañ leen ci turu bureau municipal bi mais gërëm nañ ci turu conseil municipal bi gërëm nañ ci suñu dëkk maa ngi ñaan yàlla yàlla may ñu yàgg fekk bi su mel nii yàgg ko tal heure bu ëppee tal ko yàlla nañu mi sutura yàlla barkeel Macky gi deuxième mandat bi yàlla ko yàlla barkeel mu njariñ askan ci ci

dañoo jël njaareem rek jiital tax a taxaw ñoom aussi suñu njëriñ njaareem ñoom ñoo ngi ko ànd ak ñoom tey ñoo bokk ndey bokk baay li am fii moo war a ci réew mi nit ñi ngi waxtaan yi parce que bu ñu wootee tey bu waxtaan waxtaan moo war appel au dialogue bi ñu wax na ñëpp wuyu ji parce que ñàkk wuyu ji bu ëllëgee amoo lay wax mais ñàkk wuyu ji bu fekkee da nga nekk un acteur politique am devoir construire ëllëg réew mi boo demul wuyu bu ëllëgee da nga am jam-jam dem te

deuxième bokkuñu parti mais xamuñu lolu ñun conseil bi xamuñu loolu li ñu xam moy njaareelu ni ko gisee di ko dund njaareelu noonu la ko war ni ñu dundé ci walu parti politique war war ko dundé ci réew mi réew mi bu ñu politiquee ba teg dañ koy tegaat ci suuf àndandoo liggéey bu ñu paree nag ba politique jot ñu àndandoo politique at ku nekk dem fi nga jot te lépp rafet bu ñu paree dellu si ak àndandoo défar réew mi loolu moom lan appel boobu naa lancé ci bés solennel bi ci bir njaareelu en tout cas ñaan yalla ñëpp àndandoo bokkandoo maa ngi gërëm nag vraiment suma personnel bi gërëm. internetu Guédiawaye info waaw loolu moo nekkoon ci euh, défilé bi nga xamante ne nii doon nañ ko amal fii ci waay commune Ndiarème Limamoulaye ren nag nekkoon 59e édition ci 4 avril Sénégal bi mu moomee boppam ak léegi fii ci Ndiarème Limamoulaye maire bi initié woon di def 4 euh, avril bi di ko féete fii ci commune bi mu nekkoon 5e édition bi. te mu nekkoon nag défilé bu nga xamante ne défilé bu amoon solo la défilé bu neexoon la wax dëgg yàlla ñu impliqué woon ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi ñëpp ku ci nekk wax dëgg yàlla ci commune bi gis nga ci sa bopp ba ci taximaan yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir commune bi euh, ba ci taximaan yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir commune bi waa kon du ñu def lu dul rek santaat gërëmaat ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre euh, à travers Guédiawaye info di wax ne aussi tamit maire bi def na tamit geste bu rafet parce ci discours am wax na ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu assainissement wu gox bi ak yeneen li nga xamante ne soxlaal goxu Sénégal